pour bu nek dañuy rassembler éléments yi bala ñuy dem ci terrain bi donc euh, yeesalaat euh, instruction autorité yi ci période de couvre-feu bi ñu nek di leen xamal ni diggante 20h ba 6h du matin warul am circulation auto nit ñi tamit war nañ tok seen kër yi sauf que ñi nga xamné yor nañ autorisation bu préfet def wala gouverneur wala ministère de l'intérieur Nous war nañ mëna war nañ leen bàyyi ñu continuer di dox seen seen yité di doon fàttali xale yi tamit comme fan yi dañu dégg ne dana am dafa am ay violence ay acte de violence yu ñuy exercer ci yenn citoyens yi ñu leen fàttali ne loolu kenn santu leen ko kenn digalu leen ko te bokkul ci liggéey bi liggéey bi dóore bokk ci saaga bokk ci xaste bokk ci liñ ci war a def rek mooy euh, ku ko respecté wul ku nekk ñu teg la si yoon ñu teg la si yoon mais waruñ la dóor waruñ la saaga acte yooyu nag ñu ngi koy regretter su fekkee ne am na te autorité bi tam jël na ay dispositions yu mot ay motuwaay yu mot ku ko ci def kenn ku ko ci def ku nekk di policier te ñu ba ñu ràññee ko ba xam ko ay daan yu métti dana dal sa ko duñ ci protéger kenn duñ ci làq kenn loolu daal la waxoon ne dañ leen ko eggee di leen remercier ci ñëw bi ngeen fi ñëw merci beaucoup